ko ne rek responsable yi ñooy ñëw ma jàkkaarloog presse bi parce que bi ñu lancé parenage bi depuis le vendredi dernier ba léegi prononcé wu ma ci waaye fii ci Touba laa ciy wax ci Touba laa ciy waxe fii ci Touba laay waxe li ma naqari ci parenage bi waaye fii ci Touba itam lay lancé défi wu relever ko man ak yéen ñi nga xam ne yéenay waa Touba parce que Touba ñun mooy sunu ville mythique Touba ñun fi la sunu mboot nekk Touba lañu ñu am Touba la bëgg yàlla boole ma fekk ay nit ñu am pastéef nit ñu bëgg li ma bëgg nit ñu xam luy Touba wax ju du yàgg. su ma introduire ba léegi respon ba pare responsable dinañ wax bu ñu paree ma téere synthèse bi waaye parrainage bii nga xam ne Macky Sall moo ko fi def pour bëgg a gàllankoor nit ñi ndax bu ñu waxee ñu ni candidat yee bari mais candidat yi dinañ bari parce que moo ko bëggee noonu moo bëgg a ruube looloo tax ku jóg ni mën a ndax moom moo tële moo tax ku jóg jàpp ne mën na yàlla dogal ki nga xam ne tey moo jiite opposition bi moo def ci opposition bi du fi kenn deful. muy Ousmane Sonko mu gàllankoor ko bi mu ko gàllankooree bi mu ko gàllankooree ne du bokk ba ñàkk a bokkam googu ñu di ko dëgëral ñoom di ko dëgëral sotteegul nag may leen ma tuuti rek sotteegul de ndaxte nag ki ni ki ni du ko jox këyit pour mu def parrainage amul droit ci wax kuy bokk ak ku bokk loi kooku acte administratif rek la mën a def ministre de l'intérieur la te bu yàgg ñun xamoon nañ ko ne woon nañ ku far bu mu yore suñu élection te ku far yor suñu élection rek moo indi moom du juge électoral muy décider kuy bokk ku dul bokk loolu naqari na ma te dinaa ko wax parrainage bii ñu teg di wut ku ñu gàllankoor naqari na ma te dinaa ko wax waaye maag yéen ñooy ànd yëkkati gàllankoor bi ci dëkk bi metti na nit ñi jox jotuñu seeni carte naqari na ma te dinaa ko wax junni junni nit ak juróomi téeméer ñu jàpp leen guléet ci senegaal loolu mësta am ci Sénégal sàccuñu fenuñu reyuñu lu dul maa am sama xalaat maa ko wax ñu nit it jël tëj loolu nag dafa metti ci senegaal man nag fu ma toll dinaa ko wax fee ma jóge wax naa ko fa fu ma toll dinaa ko wax fii ma yaakaar it wax naa ko fi kon waa Touba nañu àndandoo jële fi li fi nekk te ku mu tabb kooku bañ na ko ba waxal na ko boppam journal bi génn na ko tey nee na tab nee na nee na fal ma mu ngi mel ni bàyyi fi li fi nekkoon te li fi nekkoon musiba la dinaa ci ñëw nag waaye damaa bëggoon bu dee lii ñu fi yëkkati na ñor nañu ñu déglu ko parce que dama jàpp nit bu bàyyee soxlaam ñëw wuyu ci ab jataay su bëggee installé beneen waxtaan rek day compliqué ma bëggoon ñu may ma tuuti rek ma expliqué leen ni leen pare parrainage bii ñu ñu gàll dinañ ko nangu dinañ ko nangu ànd kook yéen dinañ ko nangu relever le défi ak sunuy bopp dinañ ko nangu ak yaakaar ju mat sëkk te yaakaar bi fii lañ koy dëgërale ci Touba ndax ñoom ba ñuy séddalee numéro yi xam nga ban numéro lañ ma jox 28 yéen a ngi nii waa Touba maa ngi nii 28 lañ ma jox vingt-huit a ngi nii waa Touba bi parrainage mooy seen bos vingt-huit a ngi bii ngeen di parrainé bii ñu dindi ndox mi ci Touba bii ngeen di parrainé ñu xam lan mooy statut Touba bu boobaa ku xamul woon luy statut Touba dina ko xam ndax am réew bala nga koy jiite da nga koy xam am koy jiite xam la nekk ca biir am réew bala nga koy jiite da xam ña ko yor ñooy ñan ñan ñoo dëkk Touba 28 bii moo ñu yóbbu ca lool 28 bii mooy tax jigéen ñi bu ñu yara yorasee seen xaalis mën a dugg togg lekk ba suur ñoom ak seen njaboot 28 bii mooy tax ñu mën a faju 28 bii mooy tax ku war a jàng-jàng 28 bii mooy tax ñu féex 28 bii mooy tax sàcc dootul bànneexu ndax élection ren yi kat du sent ndax élection xaalis commencé na nga xam ne xale yi nga xam ne jël nañ gaal di dem seen xaalis bi ñu leen waroon a defal ñu liggéey xaalis boobu tey la ñu jël nar koo campagne man na bu ma doon xale yi doo jël sama xaalis bi ko campagne yi man may découragé bay dem ci gaal yi fii laay toog fii laay toog nga ñëw bëgg a jël xaalis bi lekk ko ma nangu ko nga ñëw bëgg a jël xaalis bi cakaaye ko ma tas ko nga ñëw bëgg a jël xaalis bi yëkkati sa bopp teg ñu ci suuf ma lànk na xale yi ñu ànd ak ñoom xeex waaye yéen waa Touba bu leen ci kenn jiitu jël leen 28 bii ñu pare ne ko ñu pare ne ko ba am ci lim bi ñu soxla buñ ci amee lim bi ñu soxla déposer ko au mois de décembre ñu jël suñu candidature campagne wote gagné jël réew mi Sénégal jëm sax ki doon ki doon sosal Sonko ba mu koy sosal dafa bëggul woon Sonko bokk ki doon attaqué Sonko booba ba léegi dafa bëggul woon Sonko bokk waaye duñu ñu découragé mësuñoo découragé ndax waxtu wu ko galgalee rek yàlla ñëw ak ay mbiram du tey nit ñi dañ naan 2021 lu jiitu 2021 ba nëga ni ñoom tàggoowuñu ak Sonko ca biir assemblée ci biti ca service am fu ñu toll ñu ngi koy galgal waaye fu ñu ko galgalee rek mu jéggi jàll yàlla di ko dimbale bii itam am nañ espoir ne dina ko jéggi jàll ndaxte ñoom loolu la ñu bëgg loolu la ñuy fexe waaye du loolu mooy am ndax li leen dal tey boo jëlee ku légitime nga dax nga génne ko ni ku légitime man damay substitué wu au juge électoral ba nga xam ni ku légitime man mi intérieur nga xam ne yow organisation élection yi dañ la ne woon yow waroo ko organiser da nga waroon def ni Ablaye Wade wut ku neutre koo xam ne farul fenn mu organiser élection yi looloo di maandu nga ni doo ko def ni duma ko def carrément ni duma ko def jël sëb ministre ministre bi substitué wu au juge électoral ñëw di tere ko bokk loolu fi lañ ko fekkoon xamoon nañ ko waaye jàpp nañ ni nañu dindee gàllankoor yu njëkk yëpp noonu la ñuy dindee waat gàllankoor yooyu dinañ épuiser recours yëpp ñun ñu ngi jóge bitim réew waaye foo dem ci bitim réew mu ngi metti lu lu xew ci Sénégal mu ngi metti lu lu xew ci Sénégal parce que ñoom pays de liberté lañu te gis nañ ko parce que dëkk boo xam ne ku yëngatu ñu tëj boo ñëwee ci sa siège ñu tëj ko xale yi amatuñu espace bu ñu exprimer woo ba dem bitim réew bi fi exprimer woo loolu rek waroon na tax président Macky Sall ba mu ñibbisee mu xam ne man mii ni ma nekkee sama waa réew du noonu ba nga xamee ni bëgg na galgal Sonko la ko ca fekk. mooy ruube boo xam ne jigu ko ndax tey xamuñu ñaata candidat ñëw am parce que comme ki war a nekk candidat légitime ci partem partem structuré légitime ci doxalam légitime ci résultat wu élection kooku bloqué mu ngi koy jéem a bloqué mënagu koo bloqué nag ndax diggante xàcc ak dóor yi wu yàlla xaj na ci segum nag kookal lay jéem a bloqué ñeneen ñëw ñoo xam ne dinañ ko langal te xamul nag fi mu jëm